ok alhamdulillah wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain ñu ngi santaat suñu boroom subhanahu wa taala di dellusiwaat ci suñu téere bi di risala bu ibn abi zayd alqayrawani ñi ngi yegsi tey ci fanweereelu bunt bi ak juróom-ñaar baabun fi ahkaami dimaai wal xudud fanweereelu bunt bi ak juróom-ñaar baabun fi ahkaami dimaai wal xudud su dee ne yaa ngi ci samaru daani bi yaa ngi ci woon page cinq cent soixante-huit bu dee yenn traduction yi am na boo xam ne yaa ngi ci quatre-vingt-douze ala kulli xaal ak téere boo mën a yor xoolal rek fanweeri lu bunt ba ak juróom-ñaar ah naam naam kon incha allah dimanche bi moom mooy fukkeelu fan ci weeru safar sun maam yi di ko wax di góogàmmu moo it le vingt sept ci weeru septembre ci deux mille vingt su di dañoo jël suñu bind bu njëkk mu ne wala tuqtalu nafsun bi nafs kenn du rey bakkan ci bakkan illa bi bayyinatin aadila lu dul ci ay preuve muy lay ay preuve yoo xam ne yu maandu la aw bi itiraafin wala bokk ka def nangu ne maa ko def aw bil qasaamati ida wajabat wala boog ci waatante mi ngi noonu ci giñ su dee ne loolee dafay war mi ngi noonu mbokk lii mooy buntu ahkam fi dima bunt bi wane ñiy tuuralante deret naka la ko sharia atte alxudud mooy loi yi sharia tëral ngire ku def nangam nañ ko def lii lan mooy jubluwaay bi ngiree keneen bañ koo def loolu mooy jubluwaay loi sharia mooy nakaal la mooy ci def lii teg leen ko lii ndax ci bëggoon a def loolu ba xalaatee lañ def ke dellu gannaaw ci loolu loolu mbokk mooy alxudud li ñuy jëkk a wax mooy xaw naa ko sax tëb pour ñuy jarul ñu koy jàng waaye gannaaw ba ma ne ah nañ ko jàng rek doonte ne nii suñu luwaay réew atte woowuñu lii allahuma lu dul jullit war ngaa gëm réew ma nga nekk atte woo nañ la yàlla santaaneem atte woowuñ ko la nga war a gëm moom mooy dañoo waroon a atte woo la yàlla tëral loolu moom nga war a gëm yow magistrat ministre député kum mën a doon war ngaa gëm ne yàlla mi tëral ne julli leen woor leen aj leen màkka yàlla moom it moo wàcce ab téeréem ne nañ ko attewoo loolee moom da nga koo war a gëm ñàkk koo gëm da lay dugal ci kéeféer gëm ko ci jëfewoo ko it ci bakkaar yi gën a mag ca la bokk loolu ñu bàyyi ci xel bu baax moo tax fii mu ne kenn du rey bakkan ngiree daa rey bakkan lu dul ci preuve preuve boobu dana ko wax ci kanam waaye mooy lu mu néew néew ñaari jullit yu maandu seede ne diw mi dee day ñoo fekkee ba ko diw di rey loole bu amee attekat ba dana ci sukkandiku ba rey ka nga xam ne moom moo rey mbokkam mi ngi noonu walla boog waa ji dañ koo rey am ku ñëw ne dëgg dëgg man mii maa ko rey su boobaa it dana yey ñu rey ko walla boog li ñuy tuddee alqasaama mooy waat goo xam ne nii dañ koy waat su dee ni kay loolu wareef la bu rot pour ñu waat ko bokk na li ñuy ci tegit mooy kon lay tax ñu rey bakkan mooy day rey bakkan ca moo ko tey su ko teyul kenn du ko rey ñaaril bi tax sharia di rey bakkan mooy koo xam ne nii dafa génn ci diine ji suñ ko tuubloo mu bañ dañ koy rey ñetteel bi mooy koo xam ne mës na sëy ànd ak soxnaam ba pare wëlbati ko di njaaloo ñett ñi rek moom la ñuy rey ci loi yi yàlla tëral waa dañuy rey it fokk day ànd ak xelam dof lu mu def kenn du ko ci rey fokk day doon koo xam ne nii dafa doon ko majeur waaye xale kenn du ko rey sooy jëlaat beneen bind mu ne yuqsimu wal yuqsimul walaatu xamsiina yaminan dana waat ñi fiite woo kañu rey juróom fukki waat wa yastaxiquuna dama daa di yeyoo nag deretu seen mbokk ma wala yaxlifu fi lamdi aqallu min rajulayni doonte ne du waat ci dëgg ci ak tey loo xame ne nii dafa néew ñaari góor mi ngi noonu mbokk la nga xam ne mooy waat gi nu muy demee mooy waa ji rey nañ ko waaye nag avant muy dee nee na diw moom a rey mi ngi noonu fekk nañ ko ci deret ji dóor nañ ko balu fetal caw nañ koy jeesi ay mbokkam ñu mu ne leen diw moom a rey gannaaw ba dee mbokk yooyee am nañ droit ñëw ci attekat bi ne suñu mbokk diw moo ko rey su ko defee attekat bi da leen di woo ñoom nañu toll ñu waat juróom fukki waat yoo xam ne dañ leen koy séddale doonte ne nag lu mu niiw niiw dañ mat ñaari nit bu dee ñaari nit a ku nekk waat ñaar fukki yoon ak juróom billahi lazi la ilaha illa huwa waat ca ne suñ mbokk bi diw moo ko rey amma bu doon kenn dong moo teewe wax ja loolu du tax sharia di rey nit ñi nga noonu sa mbokk dañ koo rey avant muy dee nga ñëw mu ne diwa ma rey ca amoo ko ko ku la ñaareet loolu du tax ñu rey ci kenn buñ jëlaatee beneen mu ne wala yuqtalu bilqasaamati aksaru min rajulin waahid dee suñu rey ci ak waat lu ëpp benn góor wa innama tajibu alqasaamatu bi qawli almayit dana war lii di waat ga ca waxi aji deeja dami inda fulaan mooy sama deret day ki ma rey mooy diw aw bi shahidin ala alqatli walla fekk am nañ kenn ku seede rey ga aw bi shahidayni ala aljarxi walla ñaar ñu fekke bañ koy jam summa yaishu bada zalika wa yakul wa yashrab gannaaw ba mu dund gannaaw loolu lekk daa di naan mi ngi noonu mu ne mbokk lii nga xam ne mooy ak waat bu ñañ reyal di waat kenn rek lañ ca mën a rey masalan bu waa ji ñëwoon ni sama bàyyi day diw ak diw ak diw ak diw ñoo ko rey dañ naan déet kenn nga ciy wax ne moo ko rey kan moo ko rey su ko defee kam ca accusé koo kay lay waat ne kii moo rey sama bàyyi su ko defee nañ ko junje sànq mooy waat googee balaa mën a am waa ji day taxaw ni sama bàyyi day avant muy dee sama frère avant muy dee nee na diw moo ko rey walla bañ koy rey kenn fekke na ko wax naa la sànq ni kenn nit ku fekke ñu rey nit su demee ci attekat bi wax ko du tax ñu rey waaj maadaama benn seede la waaye nag mbokki ka ñu rey am nañ droit dëgg ci seede boobi ñëw ñoom taxaw ci kanamu attekat bi waat juróom fukki waat ci ni diw moo rey suñu mbokk walla boog ay ñaari seede yoo xam ni fekke nañ bi waa ji di caw ka nga xamee ni moo dee ay jaasi fekke nañ bi mu koy jam ba lu fetal ñoom seede wu ñu rey gi waaye seede nañ jam-jam yi waa ji jóge na fa dundaat lekkaat na naan doog a dee waaye la tax mu dee mooy jam-jam yañ ko jam ñaari jullit seede nañ ko lii ba tey it maadaama dundaat na du tax sharia rey aji rey ja allahuma lu dul mbokk ya nga xam ne ñoom ñoo yoroon seen mbokk ba gaañu am nañ droit ñëw ci attekat bi waat juróom fukki waat ni diw moo rey suñu mbokk diw suñuy jël beneen bind mu ne wa ida nakala mudda'u dammi suñu demee ba mu dellu gannaaw ña doon woote seen deretu mbokk ni waatuñu xalafa almuddaa alayhim xamsiina yaminan dana waat ka nga xam ne dañ leen koo jiiñ juróom fukki ngiñ fa in lam yajid man yaxlifu min walaatihi suñu amul ku ànd ak moom giñ ci ay féetewoom maahu gayra almuddaa alayhi lu dul kañ jiiñ na moo def mbir ma xalafa xalafa alxamsiin su booba dafay waat juróom fukki waat léegi kaa bi mu wax mooy lan mooy ñii ñëw nañ ci àttekat daañu ne ah diw dey moo rey suñu mbokk diw ak yu seen preuve suñ preuve mooy kenn diw mi moo ko fekkee ah su boobaa àttekat bi danaan leen déet loolu du doy fokk mu ànd ak waat walla boog diw ak diw fekke nañ bi mu koy jam doonte ne dundaat na ñu ne kon fokk ngeen waat walla boog ñu ne moom avant muy dee nee na diwa ko rek dañ naan d'accord waaye fokk ngeen waat ñoom buñ bañee ne nekk na duñu waat duñu waat pour confirmer ni diw moo rey seen mbokk ca mbokkul boo gisee islaam yi taral waat googe dalay yéem sax waaye yàlla muy atte lu ko neex ndax bu dee atte yu bari waa ji benn yoon lañ koy waatloo bu dee jiñ sa soxna njaalo ñeenti yoon lañ day waatloo amma bu dee attere ñit juróom fukki waat la ñuy waatloo mbooloo ma loolu bu ko defee attekat bi day woowaa dañ jiñ da ko ñii kat nee nañ yaarey seen bokk waatloo nañu leen ñu ne duñu waat waaye yaa ko rey loo ci xam su dee ne moom dane reyuma ko attekat bi danaan ko kon waatal moom it mu taxaw waat juróom fukki yoon ci yàlla ne liñ may jëñ defuma ko su nangoo waat ñu bàyyi ko mu dem amma su nanguwul a waat dañ ko rey wala ñu teg ci moom diya te loolu it mbokk yàlla ni ma toll koo xam ne su xol bii tuuti nga mi ngi ci ngay waat billahi reyuma ko billahi reyuma ko di tegale di tegale te ngëm tuuti nekk sa xol te da ngay fen balaa juróom fukki yee kii nga dellu gannaaw loolu moom la ci jubluwaayu sharia ala kulli xaal kon noonu la heure bu ñu accuser ay nit sans preuve ya tax ñu rey ña accuser ñooy waat suñu bañee waat ka ñu accuser waat mi ngi noonu su waatee ñu bàyyi ko su ba su nangula waat nag ñu teg ci moom la nga xam ne mooy atteb sharia mu ne walaw iddaa al qatlu ala al jamaa su dee ne da nga dañoo woote ak rey ci mbooloo xalafa kullu waxidin xamsiina yamina su boobaa it mbooloo moomee ku nekk ca ñoom te nañu accusé dana waat juróom fukki yoon wa yaxlifu min alwolaati fi talabi dammi xamsuuna rajulan dana waat ña féetewa kañu rey juróom fukki góor xamsiina yaminan juróom fukki waat wa in kaanu aqalla qusimat alayhim al ayman suñu néewee dañuy daal di séddale ca ñoom ngiñ ya mbokk arab yi bu jëkk seen famille yi dañoo xamante jàppalente du arab yu jëkk yi sax xatta suñ jamonoy tey jii mën nga dem ay dëkk yu bari ci Sénégal dëkk bi yépp ay mbokk lañ dëkk bi yépp ay mbokk lañ wala léeg-léeg ñaari famille fay daje caareen caamin jeex na mais ñépp xamante nañ su ko defee kaa bu mel nii bu amee attekat bi day convoqué ci ñoom juróom fukki nit ku nekk ñu waat loola ci ni suñu mbokk bi reyu ko su dee ne dañoo nekk juróom ku nekk waat fukki waat ala kulli xaal dañ koy séddale ci seen diggante loolu moom mooy mbir bi xam ngeen ne it suñ demoon bay wax waxi diya diya it ñoo ngi koy teg famille ki rey muy alaaxira moom famille ki rey lañ koy teg ko defee attekat bi mooy xool géñoom yépp ay doomi baayam yépp nga leen lii lañu war a indi ku nekk ñu wax la lañ ca war a def loolu it xikma sharia la ca mooy ku nekk ci nit ki famille ba nga bokk war ngaa fexe ku ci dëng nga ñu téye ci loxoom ba mu bàyyi dëng te ga loolu tax bu defee conséquence conséquence boobu ñu boole leen ci comme la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doon wax naan unsur axaaka zaliman aw mazluma sa mbokk fu mu tooñi dimbali ko waaye bu ñu ko bu dee moo tooñit dimbali ko ay bu ñu ko tooñee dimbali ko bu dee moo tooñ dimbali ko ah yu mu yàlla yu ni ñun dey bu dee dañ koo tooñ ñu dimbali ko loolu moom xam nañ ko waaye bu dee moo tooñ nag mu ne yéen ñëpp tey leen ci loo xam nga ne ko diw yaa tooñ gis ngeen buñ jëlee beneen bind mu ne wala taxlifu imraatun fi l amdi du waat la nga xam ne muy jigéen ci reyug tey wa taxlifu l warasatu fi l xatai dana waat ñiy war a donn ca reyug njuumte bi qadri ma yarisuuna min addiya ca kemtalaayu la ñuy donn ci diya ga min rajulin aw imraa na doon góor la wala jigéen mi ngi noonu wa in wa in kasarat yaminun alayhim su dee dañuy séddale waat ga ca ñoom xalafa aksaruhum nasiban minha dana waat ka ëpp cër ca ñoom wa ida xadara baadu warasa bu teewee lenn ca ñay donn warasati diya ñay donn diya ba alxot i fekk diya njuumte la lam yakun lahu buddun an yaxlifa jami al ayman fakk kooku dana waat mboolemi ngiñ ya suma yaxlifu man yati baadahu bi qadri nasibihi min al miras gannaaw bu mu waat ñu ñëw ca gannaawam ca kemtalaayu cër ba ñu am ca miras ba day wax fii ne bu dee ne waat ci rayug tey nga xam ni bu dee lay am na ca waa ji mën nañ koo rey loolu kenn du ca boole jigéen bépp loi boo xam ni rey da cay am ak tuur deret kenn du ko séddaloo jigéen islam du séddaloo jigéen lu dul ci alal yi dul ci alal yi moo tax mu ne su ñuy leblente nañu indi ñaari góor ñu sédda ko su ñu amul ñaari góor ñu indi benn góor ak ñaari jigéen looloo tax mu ne nag bu dee waa ji dafa rey ca teyu ko teyul rey ki ñépp xam nañ teyu ko waaye nag miim na ko miim na ko mu ne su boobaa bu ñuy waat mën nañ caa boole jigéen su boobaa jigéen ña ak góor ña ku ne day waat sa cër na mu toll ca miiraas ba masalan ñaari góor lañu ak benn jigéen juróom fukki waat lañu war a waat dañ naan hee yéen góor ñi ku nekk na waat ñaar fukki waat yow soxna si nga waat fukki waat ci ne diw mi moo rey seen mbokk mu ne bu dee ne ña nga xam ne ñoo yeyoo ndono ga am na ñu fa nekk ca ñeneen ñi nekkuñu fa ña fa nekk dañuy waat mbooleem juróom fukki waat yi doonte na ña ca desit heure buñ ñëwee cër bañ waroon a am ci miraas ba dañ waat lu toll noonu loolu moom lay wax ci wàllu googee buñ jëlee beneen bind mu ne wa yaxlifuuna fi lqasaamati qiyaaman daañu waat ca la nga xam ne mooy dàgg sante ba ñuy waate mooy ca atte ba atte waat ba qiyaaman kuy waat da ngay jóg taxaw wa yujlabu ila makka wal madina wa bayt al muqaddas ahlu amaliha lil qasaama ña nga xam ne dañoo jege makka ak madina ak baytul muqaddas ñooñu dañ leen di yóbbu ca fa nga xamee ne nii mooy néeg yu tedd yooye ca jàkka ya ñu watloo leen fa wa yujlabu fi gayriha illa min al amyal al yasira dañ ko jël di leen yóbbu ci feneen fu bokkul ak dëkk yooyee dañ leen indi Makka ak Madina su dee nekk yi nekk na distance ba nekkul loo xamee ne nii lu sori la dafa nekk rek quelques miles muy quelques kilomètres mi ngi noonu su ko defee mu ne wala qasamata fi jurxay ay waat nag du am ci ay jam-jam jam-jam moom dañu am preuve rek waaye kenn du ca waat wala fi abdin kii di jaamit duñ ko waatloo wala bayna ahli kitaab ñii di ahlul kitaab it duñ leen nekk di leen waatloo wala fi qatili bayna safayni kenn du waatloo it ci xeex boo xam ne ñaari mbooloo ñoo doon xeex kenn du jël ne diw moo rey diw maadaama xeexu mbooloo dañ naan ñaari mbooloo ñoo doon xeex am nañu seddee aw wujida fi mahallati qawm wala boog ñu fekk ko ci dëkkuwaayu ay nit waa day wax fii rek ne bu dee ne waa ji dañ koo jam ca amuñu ay preuve du ñu dem uti ay mbokkam yi ñëw di waat ci kanamu àttekat bi ne diw moo ko jam preuve yi day taxaw bu loolee waat amu ca li nga xam ne nii moom mooy ay jaam yi daawuñu ne duñu leen nekk di leen waatloo bu dee ne it nit ki dafa rey ab jaam gis nañu ne dana ñëw ca kanam diye bi lay fay lim wax bayna ahlul kitaab am nañu ko firee ne ñoom duñu nekk di leen waatloo ci loo xam ne daa jëm ci ab jullit mi ngi noonu bokkul ak la nga xam ne day xew seen diggante ñoomu neen niñ la waxee it ci xeexu mbooloo duñ ci accuser kenn ni diwaree kenn dañ naan xeexu mbooloo la ci noonu rek lañ koy atte lim mujj it mooy gis sa mbokk ñu rey ko ci kar ci diw wala ci kër diw du tax ñu ne dangay waat na ñoo ko rey ndax xam ngeen ne nit mën na rey nit sànni ko ci beneen beneen beneen place te boo gisee suratul baqara la tax ñu tuddee ko suratul baqara loolu rek moo ko waral ay jamono yonent Yàlla Muusa am na ñu xëy gis seen baay rey nañ ko sànni ko ci benn place ñu ñëw ci yonent Yàlla Muusa ni ñii ñoo rey suñu baay waa quartier bi ñoo ko rey ñoo ñii ne ñun reyuñu ko ñu dem ci Muusa pour mu àtte leen Muusa ne leen rey leen nag ren di leen aw nag loolee la ca xew xam ngeen ko suratul baqara ak juif yi seen dëgër bopp ci gàttal rey nañ nag bi Moussa ne jël leen dara ngeen dóor ko biñ jëlee dóor góor gi góor gi jóg daa ji ne sama doomu frère bi moo ma rey ndax boobu moom amul doom bu deeyee doomu frère bee koy doon bu ne kii moo ma rey fekk da koo rey ba pare yéenu ko ci guddi sànni ko ci ay kër yi kar ci seeni noonu loolu moo tax mu ne gis ñi dee ci place it du tax ñu ne dañuy waat ne lii mooy ñii ñoo ko rey mbokk kon mi ngi noonu ci lu aju ci waat googe bala ñu jël leneen loo xam ne du loolu ñu xool ndax mbokk yi dana am lenn ci laaj yu jëm ci dars bi doonte ne fàttewuñu leen ñu xoon ci njëlbeen yi ay kaala yoo xam ni atteem doxaluñ ko ci réew mi allahuma nag bala ñuy dem xëy na ñàkkul mbokk bu amoon lu mu ciy laaj waaw bismillah naam naam ndax islam dana ko waaw ndax islam dana teg ki nga xam ni dafa rey nit loo jàpp ko tëj ko daal di koy bàyyi mu dem loolee dañ ko jàng ci kanam mbokk heure boo reyee doomu aadama da ngay joxe li ñuy tuddee diya su dee na reyuñu la lu dul famille ba kay ñoom ñooy daje baal la su ko defee ñu baal la ko waaye bu dul looloo da ngay joxe diya diya boobu dañ ko jàng ci kanam incha allah naam naam bismillah waaw ñi nga xam ne dañuy jàpp sàcc dóor ko ba mu dee seen atte na muy demee mooy li ñuy jëkk a wax mooy ñàkk atte woo li yàlla santaane loolu lay jur day jur li ñuy tuddee ab anarchie boo xamee ne nii nit ñi dañuy atte seen bopp te loolu muy loo xam ne nii lu dangereux la ndax ci lislaam moog loi yi tëral ci àdduna bi yëpp a yem kenn amul droit rey ku dul buur buur rekk am droit rey maa ngi jublu ci buur mooy attekat ba buur taxawal waaye quelque soit doomu aadama lu mu def ci kaw suuf yow mi nga xam ne moroomu dëkkandoom nga comme moom amul droit rey ko su ko defee bu dee mbooloo ñoo daje rey nit te preuve am ci ne ñoo daje rey ko ñoom ñëpp la ñuy rey ñu ngi noonu am na juróom-ñaari nit ñu reyoon benn julit ca Yaman ci Sanaa bañ ko waxee Omar mu ne rey leen leen gars yi ne ko ah ñu rey juróom-ñaari nit ci benn bakkan mu ne bu doon waa Sanaa yépp ci daje dama leen di rey loolu kon mi ngi noonu te mooy ñoo ko tey dajaloo rey ko oh malheureusement nag comme ni nga xamee ne nii nit ñu bari fii léeg-léeg jubluwaay ba du nekk rey sàcc bi ku ne day ñëw bëgg a dóor bëgg a dóor ba mujj day ala kulli xaal nañu xam ne daal jaaduwul jaaduwul ñuy daje ak sàcc di ko dóor ba mu dee wallahu subhanahu wa taala alam naam ah bismillah naam wala kulli xaal ci lislaam moom ki rey nit ngir yàkkamti mu dee ngir mu doon ko dootu ko doon te bu dee preuve am na ne moo ko rey mbokkam yam bàyyi ca du moom am nañ droit ñoom ñu rey ko su dee ni baal nañ ko rey ga it lay jóge ca kam rey moom kenn du ko ko jox kenn ndax ki nga xam ne dafa rey du bokk ci ñu doon na doon baayam la reyam frère am la reyam kum mën a doon maadaama da nga koo rey yow doo too bokk ci ñu doon mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala aalam naam wala kulli xaal kon ñu continuer jël beneen bind mu ne wa qatlul xiila su dee rey goo xam ne reyug agressé la pour jël alalu nit ki laa afwa fiihi foofu moom bale du ca am wali rajulil afwu góor ga ñu rey nag bu ko neexee moom bale an dammihil amdi ca rey gañ ko rey ci ci tey ko in lam yakun qatalal xiila su dee nekkul koy reyu goo xam ni waa ji dafa ñoon rey ko ngir jël alalam wa safuuhu anil qatli anil qat'i fi sulusihi bale ga muy baale ca reyu tooñ gañ ko reyit do paasa ceeru diye ba wa in afa ahadul banin su dee kenn ca doom kañi rey bale na fala qatla kenn du rey waaja wa liman baqiya nasibuhum min addiya su ko defee ña des daan jël seen cër ca diya ba wala afwalil banati ma al banin gannaaw ba it du du ñu jël bale ay doom yu jigéen ya fekk dañoo ànd ak doom yu góor ya mi ngi noonu mbokk day wax fii nii ki nga xam ne daa rey nit ki noonoowuñu xeexuñu xanaa daal da koo bett rek rey ko pour jël alalam ku mel nii kenn du ko baal ku mel nii kenn du ko baal du doon waajir ñu rey avant muy dee bu ne baal naa ko it du tee état da koy rey mbokki kañ reyal buñ dajee ne baal nañ ko it du tee état da koy rey nga noonu du tee état da koy rey lu waral loolu ngir décourager nit ñi def lu mel noonu moo tax mu ne ki nga xame ne nii mooy waa ji ñu rey bu ko neexee ci rey goo xam ne daa jóge ci noonu daa jóge ci xeex waa ji avant muy dee mu ne ah man day xam naa damay dee waaye su ma deeyee diw baal leen ko diw baal leen ko baal naa ko su dee ne ba moom ne na baal na ko su boobaa dañuy gis ni mbir ma fa lay yem ndax loolu deretam la àqi keneen ci wàllu alal ajuwu ci amma bu dee waa ji ko rey teyu ko nga xam ne kenn du ko baal waa ji dee rek dafa war a joxe diya su dee ne ne baal naa ko dañ naan ah lii dey sa alal la waaye nag amoo droit maye ci lu dul ceer ba kon su boobaa waa ji ceer ba lañ koy teggil la ca des ña ko war a doon ñoom ñooy féetewoo ndono googe mi ngi noonu muy wax ci beneen cas mooy waa ji nga xam ne nii dafa am njaboot léegi ñu rey ko biñ ko reyee am benn doom mu ne man baal naa waa ji rey su boobaa waa ji kenn dootu ko reyet diye rek la ñuy mën a jël ci moom même bu doon dix-neuf doom yépp dañ ne nañ ko rey kenn taxaw na buñ ko rey islam danaan buñ ko rey te it nañu xam ne mbokk islam tëral nay luwaam waaye pexe bu ñu mën a def ba bakkan ba ñu tuuru rek islam ubbi na ci ay bunt te bokk na ci loolu looloo tax fi mu ne tey jii da ngay gis Arabie saoudite ku rey nit dañ ko téye du mat daanaka dix ans wala quinze ans ndax doom yim bàyyi ñëpp fokk ñu bàyyi ba ñëpp majeur ku nekk nag ñu laaj la ndax kii rey sa bàyyi dañ koy rey am déet ngi noonu te it boo yàggee topp seen jugement yi da ngay gis ni juge bi dina la ñaan baal leen ko looloo gën da ngeen am tuyaaba kaza wa kaza su dee am ne kenn ko taxaw ni baal naa ko rek su boobaa kenn dootu ko rey diye lañ koy laaj donte ne nag moom mi ne baal na ko wàllam ci diye bi moom ah da koy jéggalee kenn du ko ko jox loolu it lay wax mooy bu dee ne ay jigéen ñoom it kenn du jël seenug bale ci reyug gu ñu tey nga xam ngeen bokk jigéen lépp luy wàllu rey rek jigéen dafa sensible moo tax kenn du ko dugal ci ay atte amma bu doon ak ak ak ak ak ñàkk ak ak ñàkk tey moom su boobaa seen bale googee dañ ko considéré te bu dee ak tey kenn du ko considéré ci ci ñoom loolee mbokk la wax ca wàllu googee buñ jëlee beneen bind mu ne wa man ufiya anhu fil amd koo xam ne dañ koo baal ca rey gama rey ca moo ko tey duriba miata wa xubisa aman dotee attekat bi dana ko dóor téeméeri yar tëj ko ca kaso ba un an ferme wa diyatu ala ahli naam kon kooku bind bind boobu la doon wax waa ji nga xam ne ci sharia dafa rey ñit rey ñit moo ko tey xam nañu diw moo ko tey rey ko waaye mbokki kañu rey ne baal nañu ko baal nañu ko état dana leen wax waaw baal ngeen ko mais nag du tee ñu teg ci moom loo xam ni dana décourager ñeneen daañ ko dóor téeméeri yar gannaaw ba tëj ko ci kaso bi un an loolu moom mooy atte bi nga xam ne tëral nañ ko waaw mooy atte bi nga xam ne tëral nañ ko loolu lay wax mbokk ci wàllu googee muy doog a ñëw nag ci li nga xamee ne nii dañ koy tuddee ay diya ay diya ca mooy waa ji rey na teyu ko walla waa ji rey na moo ko tey mbokk yi ne ñun dañ ñuy jox diya diya boobu naka lay demee mu ne wa diyatu ala ahlil ibli miatun min al ibil bu dee ña nga xam ne ay sàmm ko te giléem lañu ñu rey nit dañ leen di laaj téeméeri giléem wa ala ahli zahab bu dee ñay jëfandikoo or alf dinaar dañuy joxe junni dinaar wa ala ahli lwariq bu dee na ñay jëfandikoo xaalis isna ashra alfa dirham dañuy joxe fukki junni ak ñaar ci ay dirham mi ngi noonu bu ko defee loolu la mbokk kon wa ñi nga xamee ni nii xaalis la ñuy jëfandikoo comme ñun di ëpp ci suñu réew tey waa ji rey dañ naan ko ne indi junni dinaar lan muy junni dinaar benn dinaar égale quatre grammes vingt cinq ci or kon mille dinaar day nekk quatre mille deux cent cinquante grammes ci or loolu tey bu ñu demoon laaj tëgg bi gramme or fu mu toll tey mu ne masalan vingt cinq mille nga bokk multiplier par quatre mille et quelque loolee mbokk da ngay gis ne day dem ba presque ay cent et quelques millions yoo xam ne moom la ñu war a laaj waa ji nga xamee ne nii dafa rey nit fekk ne moo ko fekk ne teyu ko nga xam ne dafa war a joxe dee boobu plus de cent millions war na ko joxe loolu mi ngi noonu ba doon te ne tey ñoo xam ne ay nag la ñu yor dañ leen di laaj la nga xam ne nii moom mooy ay junniy nag naam dañ leen laaj la nga xam ne mooy ñaari téeméeri nag bu doon te ne ñuy jëfe ay xar ñu laaj leen ñaari junniy xar almuhim mbokk lii mooy atte bi nga xamee ne nii dafay aju ci loole jamono bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam di dund ku am daanika benn dinaar da nga ci am fukki dërëm ak ñaar ku am fukki dërëm ak ñaar am benn dinaar am maa nag suñu jamonoy tey or ak xaalis seen différence dafa jigi dayoo tey jii bu ma naan la bu ñu nee gramme or ñu ne vingt cinq mille gramme xaalis cinq cent francs lay jar ba nga xamee ne tey pour am ki amoon xaalis bëgg gramme or daanika dana indi lu jege mi ngi noonu cinquante wala cinq cent grammes ci or nuñ koy wax waa cinquante grammes ci xaalis pour mën a am benn gramme ca la nga xam ne moom mooy or bale loolu moo tax kon différence bi dafa xaw a wuute yii yëpp nag dañ koy jàng ngir yow boo yëgee ko nattu dal ba mu rëy nit mu xam ne day bu dee ci àtte sharia yoral na mbokk yañu rey loo xam ne dana tourner autour de cent millions ñoom buñ ko ko baalee ñoo xam buñ ko ko baalul it na xam ne yeyoo na jox leen lu mel noonu loole moo aju ci ñuy jëfandikoo or ba bu dee ñuy jëfandikoo xaalis comme na ma la ko waxee différence bi dafa bëri léegi ba moo tax borom xam-xam yi am uute ci wàllu nisaabu zakat ci dañ koy génne ci oram dañ koy génne ci xaalis donte ne loolu dafay aju ca yeneen i bind waaye quand même ñu am rek aperçu ci loolee su ko defee loolee it attekat ba moom moo koy détaillé moom lay wax naan wadiyatul amd ida qubilat xamsun wa ishruna xiqa wa xamsun wa ishruna jaza wa xamsu wa ishruna bintu labunin wa xamsu wa ishruna bintu maxaadin loolu ay ay giléem la yoo xam ne dañu naan waa ji dafa rey nit ki na indi ñaar fukki giléem yoo xam ne bu ne yaa nga am lu jóge juróomi at ñaar fukki giléem bu ne am na ñeenti at ñaar fukki giléem bu ne am na ñetti at ñaar fukki giléem bu ne am na ñaari at loolu moom mooy diye bi moo la moom lay wax ne wa diyetul xat bu dee ne nag waa ji dafa juum tayul rey gi muxammasatun ashruuna min kulli ma zakarna moom it dañ ko séddale juróomi parti comme niñ koy waxee ci lu njëkk la mi ngi noonu wa ashruuna bannu la bu nin zukurun ila axiri wa innama tuglazu diya fi l abd yurmi ibnahu bi hadid fa yaqtuluhu mu ne dees na taral diya ci bàyyi bu dee daa sànni ak weñ doomam rey ko fala yuqtalu bihi ndax kenn du ko rey ngir loolu wa yakunu alayhi salaasuna jazaa wa salaasuna xiqa wa arbauna xalifa min butuniha awlaaduha wa qila zalika ala aqidatihi am na ñu ne déet loolu dañ koy teg ca ay mbokkam wa qila zalika fi maalihi am na ñu ne loolu ci alalam la atte bi muy indi fii mooy atte bàyyi mbokk bàyyi bu reyee doom kenn du ko rey looloo tax ñu ni su dee ne nag rey ga da ko sànni loo xam ne mën na koo rey jaasi la ko sànni wala xeej la ko sànni xale ba dee ñu ne kenn du ko rey waaye nag daan taral diye ba ci moom doonte ne wax ji mu wax du borom xam-xam yépp a ci dëppoo borom xam-xam yi dañ naan bàyyi duñ ko rey ci doom même bu doon da ko doon dóor ba mu dee dañuy jiblu rek ni da ko doon yar amma bu ko defee loo xam ne kenn sikk sàkkwul ne lii rey tey la su boobaa dañ koy rey masalan da koo tëral rendi ko da koo fekk ca dixième étage ba max ko mu daanu mi nga noonu moo ko sànni ilaaxiri ala kulli xaal daal loo xam ne sikk sàkk amu ca moom dañuy rey bàyyi ci loolu waaye nag tant que ñi ngi jàpp ne ah lii kat mën naa dugg ci bi yar su boobaa kenn du rey bàyyi ngir doom loolu mooy wàllu googee loolu kon lay wax doonte ne ni ni ma la ko junjee sànq waa ji juum ba rey ay mbokkam la ñuy séddale loolu doonte ne suñ jamonoy tey nit ñi xamatuñ luy mbokk sax waaye la ma la waxoon ci jëlbeen bu njëkk ñëpp xamante dëkk bi ñëpp ay mbokk lañu kii rey na war a indi téeméeri giléem ay mbokkam la ñuy wax nañu indi giléem yooyu amma nag bu dee rey goo xam ne reyu tey la wala rey gu nuru gu tey attekat bi danaan waa ji ci sa alal dong lañ koy génnee moo tax mun a bàyyi bu sànnee doomam lu ko mën a rey dañ koy génne ci alalam loolu lay wax ca wàllu googee xam na kon mbokk yi dañuy doyloo lii incha allah di ñaan suñu borom subhanahu wa taala yal nañu yàlla musal ci ñuy rey nit ñoo ko tey teyuñu ko suñu borom subhanahu wa taala dani yeyul ci julit muy rey mbokk julitam lu dul daa juum koo xam ne da nga rey sa mbokk julit fekk da nga juum ngalawaay na goreel jaam ca joxe diya mbokk yam reylu wax naa leen ni diya boobee day nekk téeméeri giléem wala mu tourné ci loo xam ne daanaka danay jege cent millions buñ ko xoolee ca or ba suñ ko xoolee ca xaalis ba it dana jege vingt millions gannaaw loolu suñu borom nag ne kii amul jaam bu mu goreel na wóor ñaari weer oto nga yoroom maçon bu doon sànni birigam lu mu mën a doon nga rey nit fekk tayoo ko fokk nga woor ñaari weer yu tegeloo ndax jàmm bu ñuy goreel gis ñu ko fi da nga woor ñaari weer yu tegeloo famille ka nga reyee nit war ngaa dem négocier ak ñoom bañ a baal la wala boog la nga xam ne nii déggoo nga ko ak ñoom te sa kemtalal kattan nga jox leen ko maadaama atteb sharia bu fi nekk di tëral lii amu fi ñu ngi ñaan yàlla subhanahu wa taala yàlla nañu yàlla musal ci rey musal ñi ci ñuy rey defal ñu aafiye fi dunya wal axira wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain ña nga xam ne daf leen a rey loole moom nekk na benn lënt ci ñun waaye bu dee diye bi moom wóor na ne képp ko mu reyal dana ko jox diye amma ka nga xam ne dafa rey jaamam bokk na ci lu lu ñuy jàng ci téere bi mooy ki rey même bu dul jaamu keneen da koy daa di joxe rek valeur am mooy gor kenn du ko rey ci jaam loolu nag nekk na ixtilaaf ci borom xam-xam yi yeneen ci bi alayhi salaam na benn xadis boo xam ne naan man qatala abduhu qatal na ku fi rey jaamam dañ ko rey ba looloo tax lenn ci fuqaha yi dañ naan ki nga xam ne daa rey jaamam rey boo xam ne amul sikk sàkk su doon da ko doon dóor ba mu dee dañ naan da ko doon yar comme bàyyi bu doon dóor doomam ba mu dee amma nag bu dee ne da koo tëral rendi ko wala daa jël loo xam ne wóor na leen nit mënut a dund ak moom dóor ko ko mu dee loolee am na fuqaha yoo xam ne dañ naan dañ koy rey amma bu dee ci njàngaleem téere yi sukkandiku ci mazhab Malik ñoom dañ naan góor kenn du ko rey ci jaam dañuy xool valeuru jaam bi moom lay joxe mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam naam naam naam naam ki toog ci jàkka ji ba jant bi kawe mu julli ñaari rakka ndax dañ koy considéré la jullig yoor yoor waaw jullig yoor yoor foofu la commencé heure boobu ngay julli ñaari rakka ci jàkka ji fa la jullig yoor yoor commencé ba ba tisbaar bi di des à peine ay dix minutes jeex na loolu lépp foofu jullee yoor yoor la mi ngi noonu mu nekk ñaari rakka ñeenti rakka mën na dem ba juróom-ñetti rakka sax ci kemtalaayet gu gum yombe ci yow waaye loolu ci salaatu duha la bokk mi ngi noonu donte ni am nañuy wax salaatul ishraq waaye ishraq fa la salaatu duha commencé mi ngi noonu wallahu aalam naam bismillah naam ku dul ku ku dul julit bu reyee julit dañ koy rey fa mbir ma nekk kay mooy jullit rey ko jul jullit la gën a siiw ci borom xam-xam yi tamit mooy loolu jullit kenn du ko rey ngir dara yéeféer loolee moom da ngay gis ne la ci fuqaha yu loolu lañ jàpp laa yuqtalu mu'min bil kaafir jullit bu reyee yéeféer kenn du ko rey mi ngi noonu am na nag lenn ci ñoom ñoo xam ne dañ ne aaya yooyu la ko folli mooy an nafs bi nafs ki rey bakkan nañ ko rey bu dee moo ko tey waaye ala kulli xaal yooyu mën nañu bañ a tardeel nañ ñaan yàlla ba sharia taxaw fi ñu delluwaat ci texte yi xool ba ci gën a nat ñu jëfe ko wallahu subhanahu wa taala alam ala ku waaw ñu mujjee ci mbokk bi rek bismillah waaw ki ki ñu rey nga ne moom bakkaar bi waaw waaw waaw waaw bu dee di comprendre naa daal dañu xam ne rey rey nit dafa am ñaari àq yu ci aju àqu borom bi ak àqu jaam yi joxe ba ngay joxe àqu jaam yi teggiwul dara sa diggante sa sa borom bu dee teyoo ko moom islaam danaan wooral ñaari weer yu tegaloo loolu mooy far la nga xamee ne ñàkk tey googee nga def te it islaam mi ngi ci jublu nit ñi def attention mooy tey boo reyee nit même bu dee dañ laa baal da nga goreel jaam wala nga war ñaari weer mu des nag léegi waa ji nga xam ne nii moom da nga koo rey kookee moom sa diggante ak moom àq bi jël nga ko jox nga ay mbokkam la nga xam ne mooy la ñu yeyoo war nga ñaari weer tuub ga ngay tuub sa diggante ak sa boroom la shakka ne yawmal qiyaama yàlla dana féetewoo fayal la àq boobee ka nga xamee ni it da nga koo rey fekk ne yow yaa ko tey ba ñu rey la ngeen dem yawmal qiyaama ñaar moo mën a am bi nga ko reyee day rey googee tuub nga ko tuub gu sell su boobaa da ngay gis ne suñu borom yàlla subhanahu wa taala dana jël yow la nga xam ne mooy say tuyaaba jox ko mën na laa yërëm ba féete wala fayal la say tuyaaba bu dee dañ la rey ci tuuboo tuub gu sell du tee rey gi du da ngay ànd ak moom tabbi naari jahannam nañu xam ne loi bi ñu teg ci kaw suuf du teggi bàkkaar bi bàkkaar bi tuub moo koy teggi ñu mel ne rek waa ji njaaloo tey ñu door ko téeméeri yar ndax téeméeri yar yi moo tegg bàkkaar bi déedéet tuub gi moo koy teggi daa rey ba da da dañ ko war a rey fekk dafa njaaloo rey giñ ko rey teggiwul bàkkaar bi tuub gi moo koy teggi loolu daal ñu bàyyi xel boobu mooy loi yi dafa am sa digganteeg sa boroom